mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg Sénégal seet ñu am mbégte dellu soit ak yéen ngir waxtaanee réew mi ak lenn ci aspect yi nga xam ni moo soxal askanu Sénégal tey nag rawatina dinañu waxtaanee lu jëm ci wàllu koom-koom waaye itam wàllu politique dañu am mbégte nag dalal Ibra Ndiaye président du conseil d'administration de AIBD assistance service 2AS nekk itam responsable politique APR à Tambacounda. monsieur Ndiaye ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Sénégal 7. maa ngi lay ni sant di leen gërëm euh, ci seen invitation bi euh, yow Coulibaly ak say technicien ak ñu ngi àndal ñëpp di sant aussi suñu xarit Pape Ngagne mhm. ak euh, xaritam yëpp ñu nekk ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci espace bi nga xam ne mooy espace média bu Sénégal mhm. voilà d' accord alors ñu ngi am mbégte dalal la di la fay nuyoo ñu waxtaanee rek wàllu politique euh, responsable APR nga fële ca Tambacounda élection législative yi nga xam ne génn nañu si Tamba bokk na euh, ci euh, diwaan wala département yi nga xam ne relevé nañu le défi de la victoire au sein de Benno Bokk Yaakaar naam ne sax am na ay. défaites yoo xam ne constaté nañ ko dans différents importants départements rawatina Dakar Pikine et cetera ak ci biir réew mi ci demee ni euh, Mbacké ak yeneen ak yeneen waaye yéen vous avez su travailler pour relever le défi lan moo nekkoon seen seen seen dynamique ba egsi victoire bi. waaw euh, man nag euh, dama jàpp que ne élection yi. Mhm. def nañu ko ci jàmm ak salaam. defe naa li ci gënoon am solo mooy d'abord am victoire mhm. te yàlla may nañu victoire euh, li ci des euh, mooy euh, c'est important de le dire après la victoire je pense que nous devons faire une évaluation en interne d'abord mais aussi que ñun ñi nekkoon ci terrain bi yëpp ku ci nekk ñun xam sa taxawaay lan la woon damay bëgg taxaw ci benn mbir secret bi mun naa ko wax man exceptionnellement man fi nga xam ne fa laay militer muy sama commune muy département Tamba parce que je ne suis pas en fait au niveau euh, de bon de la mairie de Tamba mais je suis au niveau du département dama bëgg loolu mu leer parce que taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am depuis donc euh, deux mille euh, 2019 ba bésu tey bi mun naa ne c'est exécuter les directives en fait de notre patron le président Macky Sall xam nga loolu dafa am solo te jàpp naa ne que tey Euh, euh, suñu commune par exemple Ndoga dañ ko war a citer en exemple lu tax parce que dañu ñëw 2019 élection présidentielle am na ay problème bëri yu ci amoon mais ñun on a su quand même euh, laisser les gens être devant les accompagner avec les moyens des conseils pour gagner mmh. largement bi ñu ñëwee élection yi nga xam ne nii mooy yi jàll mooy élection locale Sénégal yëpp xam nañu ne su amee benn commune boo xam ne ci la population bi taxawoon di manifester ba mu amoon sax ñu ci dem en fait gendarmerie sama commune la woon Ndoga pour que man ma doon candidat parce que jàppoon nañu ne yaakaar bi ñu am ñun war nañ ci mën a dugal suñu loxo mais bi président Macky Sall tànnee avant même muy tànn dama ne samay nit man ndawu président Macky Sall la Macky Sall ku mu mënti tànn man damay ànd ak moom jàppale ko pour mu gagner donc bi mu tànnee le maire dama accompagner maire bi yàlla dimbali nañu et ça c'est très important on a neuf communes d'arrondissement neuf communes au niveau du Tamba Mais la commune de Ndoga est la seule commune qui avait dépassé les 50%. On a eu 63% au niveau donc des élections locales. yeneen communes yi les gens tournaient autour de 49 et en deçà de 49 kon loolu pour man benn exemple la bu am doole boo xam ne bii dañ ko waroon a en fait euh, généraliser au niveau donc national beneen affaire bi ci des élection législative bi mu ñëwee man dama am taxawaay boo xam ne moom laa am nee naa leen man et ça c'est un exemple que je donne dinaa ci dellusiwaat léegi fekkee ne da ànd ak sa mu jox la ay responsabilité donte élection jot na am nga lu la naqari amoo lu la neex war nga mën a jël sa xol teg yooyu yëpp nga liggéey pour am victoire. loolu bëgg wax ne am na ñu waroon am taxawaay bu ñu war a am mais taxaweewuñu ko si yenn ci ay ministre oui à plusieurs niveaux. mooy d'abord benn euh, yow nga am responsabilité bokkoo koo xam ne kii joxuñu ko benn responsabilité parce que yàlla dafa def ñu fal la jox la peut soo xam ne si war nga ci mën a génne pour contribuer pour dem campagne jàppale président Macky Sall même bu la tànnul loolu benn la d' abord premier exemple mooy élection locale élection locale qu'est-ce qui s'est passé et que ça c'est très important parce que ci quatre niveaux sax laa koy analyser benn mooy responsable yi nga xam ne dañu taxaw président Macky Sall tànn candidat am ñu ne ñoom ànduñu ci parce que gëmuñu ne candidat boobu mën na gagné ñu présenter seen ñu dem yàlla def ñu am victoire ñooñu sax liste yi waaw liste parallèle ñooñu sax man je comprendre peut-être tu as raison sur le parti même bu dee ne que mënuñ ko kii mais ñooñu mën nañu leen am lu ñu leen baal beneen catégorie bi mooy ñi nga xam ne président dafa tànn candidat am wala boog parti bi ñoom ñu ne d'accorduñu ci présenter seen candidature non seulement d'abord ñoom dañu ñàkk mais dañu ñàkkaloo parti bi ci localité bu ñu ba ñu nekk mais ça c'est extrêmement grave il faut que yu mel noonu bu amee quand même qu'on puisse y prendre des décisions muy muy deuxième niveau troisième bi mooy par exemple koo xam ne kii tey danga ñëw ne man damay nekk candidat parti bi tànn candidature am candidat am nga ne yow da ngay nekk candidat tu te présentes nga dem bon tu perds en même temps le, le, le du parti passe kooku aussi c'est vraiment peut-être benn affaire boo xam ne il faut le mais li may bëgg wax mooy ñun heure bu président Macky Sall tànnee dañu rangé wu ci ginnaaw kii mu tànn accompagner ko ba mu am victoire loolu moo ñu jural tey li ñu am au niveau donc du département de Tamba fi may waxee foofu dama ci bëgg taxaw xam nga ñun euh, j'ai vu un de presse organisé à Tamba avec euh, le bon euh, le comité électoral départemental après les élections et les gens n'ont pas voulu donner de dama ne leen ñun ay intellectuels ay cadres lañu te nit ñi jàng nañu bu élection amee il faudrait que ñu dem commune bu nekk ñu nekk ko yow nangam nga am ci wàllu pourcentage xam nga pourcentage dafay joxe benn idée globale parce que boo joxee ay chiffres nit ñi mënuñu comprendre man dama am chance. nekkoon en fait le mandataire du parti au tribunal départemental pour le décompte en fait des voix ma gis que ne suñu communes yi nga xam ne ñoo nekk au niveau rural communes yi presque ay 70 pour cent la am wala plus su ma jëlee suñu commune par exemple Ndoga ñun on a fait 70 Sinthiou Malem a fait 70 Makakoli Bantan a fait 70 parce que Bilali Ba le candidat que je remercie au passage habitait cette commune il y a d'autres communes Cela a ramené le taux en fait, du département à 56,7%. Ce n'est pas mauvais comme résultat. Mais on pouvait quand même aller au-delà de 70%. Et je le dis pourquoi Parce que nous avons une élection locale. Ben c'est vrai qu'il y avait une dissidence au niveau de Benno Bokuyaka. Un candidat qui, a, qui est parti avec donc, la liste du Parti Socialiste, l'actuel maire de Tamba, Mouy, euh, Pabande Il a eu ñun bennoo bi on avait à peu près 30 pour cent au niveau de la commune de Tamba quand vous faites en fait la somme de ces deux ça vous donne 71 cent mm-hmm. normalement bu dee logique pour logique rek ñi demoon ñëpp ñëw nañu jàpp nañu ci waroon nañu am minimum 70 pour cent au niveau donc de la commune de Tamba su ñu ko amoon tey ñun Tamba on aurait dû avoir presque plus de 75 pour cent de l'électorat au niveau donc des élections législatives loolu nag que ñu taxaw parce ñu constaté mooy en termes de responsabilité lu mës a jóg commune Tamba lañ ko daan jox président Macky Sall bi mu ñëwee la commencé gis ne département bi ñu ngi koy jox cëram parce que député yi jàll benn bi daf ko jël ci commune Tamba benn bi mu jël ko ci département bi. conseil économique social ak euh, lii di au conseil des collectivités aussi c' est comme ça qu'il a procédé au moins du point de vue loolu loolu nag dama jàpp que ne dañ ko war a saluer ko ci mais xam nga li ni moom moo naqari par exemple département naa ne que il faut que en tant que responsable du département xam nga man dama laajul dara. parce que su may wax aussi nit ñi nañu xam sama position moi j'avais quitté mes fonctions en 2016 je suis resté deux ans je suis retourné à l'ASECNA te période boobu laa gënoon mën a taxaw défendre président Macky Sall et pourtant aw ma woon poste kon man li tax may wax du post parce que je n'attends rien que ñu may joxal ay promotion non man bëgg suñu parti nekk ni mu am affaire meilleur ci la ñu nekk mais bu fekkee nekk dañuy def du ñu évaluer wala boog bu élection jàll tëj continuer waat bu boobaa peut-être problème ya fois que ñu taxaw nag quand même évaluation xool li baax ñu jéem corriger parce que li dox ci aduna noonu la dox D'accord. Voilà. Alors, je pense que c'est Dafngo le tour euh, concernant mhm. les élections au niveau de Tambacounda. Mm -hmm. euh, Bilaliba, effectivement, euh, il a été, il est passé euh, effectivement. pour le département de Tambacounda. Mm -hmm. Alors, pour nous, euh, bataille Anondobi avec euh, les alliés. Mhm. depuis 2012 Benno Bokk Yaakaar nekkoon ci benn dynamique de victoire. Mhm. c'est comme ça qu'il l'appelle. Mhm. mais gis nañu ci élection locale yi ak euh, législative yi on note une régression. Mhm. finalement certains se posent la question de savoir quel est finalement le poids des alliés. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay PS la AFP et cetera yow nag nga koy nga koy évaluer le poids de ces alliés là. waaw en fait euh, xam naa nag euh, peut-être je un peu hein, mmh. parce que euh, il ne peut-être m'appartient pas d'évaluer un peu le poids de chaque allié. Mm-hmm. loolu am na ñoo xam ne ñii quand pour man ñoom ñoo am prérogative pour def ko. Mm-hmm. li ma mun a wax mooy un allié donte un pour cent la lay indil danga nga ko war a jox gëddam danga nga ko war a respecter te président Macky Sall dafa sàmm kóllëre boobu ak yi depuis commencé. avant même 2012 ba fi ñu toll nii tey damay joxe un exemple le docteur Malick Diop il est de l'AFP il est devenu député su ma la doon liiral tey en fait euh, liste proportionnelle euh, national bu Benno Bokk Yaakaar vous allez vous en rendre compte presque cinquante pour cent en fait des députés n'appartiennent pas en fait euh, à à à l'APR Yaakaar soit ay alliés lañu wala société civile wala personne ressource ñoo xam ni président gis na ci ñoom xam xam ne mën ko jàppale assemblée nationale mu teg leen ci ñu nekk. beneen affaire bi ñu def man en tant que politique je fais une évaluation globale parce que man je travaille beaucoup sur les chiffres yow peut-être dinañ ci waxtaan après bi ñu defee en fait le bilan yow xam nga ne actuellement le Benno Bokk Yaakaar a eu 46 virgule presque 58 pour cent lors de ces élections législatives passées 46 coow li muy bëri bëri yëpp soo boolee opposition li ñu am yëpp Benno Bokk Yaakaar am na 46 virgule dama loolu da xool candidat daf leen nekk ay responsable am ay poste de direction générale wala nekk ministre kontaanuñu woon le fet que seen adversaire la ñu tànn mu nekk candidat am na lu xew fii ci Ndakaaru nga gis responsable boo xam ne élection locale bi muy dem président daf ko tànn ne ko yow yaay candidat wu am benn dissident bu jógee fee taxaw ne man dama nekk candidat dissident bi gagné six mois après ñu décidé jël kooku ne ko yow yow yaay doon candidat wu député bi le responsable politique peut-être ñàkk expérience politique moo tax mais soo amee yenn ndomba tànk yi muy direction générale d'une société nationale wala nga am poste de ministre man jàpp naa ne que lépp lu président mën a def ak nit ki président tànn man samay militant dama leen daan wax ne bu ngeen demee ci mbañ gàcce gi bulletin bi ngeen votel bulletin marron la marron président Macky Sall moo ko moom benn maire moomu ko benn ministre moomu ko kon bu ngeen ko dugalee ci urne bi président Macky Sall ngeen votel pas cette personne qui est loolu nag boo jëlee dissident ñi ñooñu nga xam ne dañu kontaanul peut-être mu ñu mayo bi la ñu waroon a def defuñu ko peut-être am na benn 10 pour cent wala 15 pour cent boo xam ne tey ñooñu ñëpp bu ñu mobiliser woon dana yokk ci 46 pour cent yi li ma la bëgg wax foofu mooy le président Macky Sall est largement dans ce pays là te tey ci tey bu ñu organiser woon élection avec avec 46 pour cent. non je dis bien li ma la expliquer. moi je parle de de chiffres. dama la yow xam nga ne journaliste nga. boo jëlee Dakar fii. am na fi ay responsable yoo xam ne tey président jox na leen ndomb tànk ñu ngi ko yore wala démb président joxoon na leen ndomb tànk kenn gisu leen ci terrain bi bi élection yi jotee ñooñu dama jàpp ne que des na seen engagement desoon na tey ci tey dem di jàppale keneen ku nekkul président Macky Sall loolu lu leer la moo tax ma ne la ñooñu benn taux la boo xam ne bi day dépassé même 15 pour cent ñoo xam ne tey peut seen engagement desoon na bu ñu muyee woon la mayo le président allait se retrouver avec plus parce que il faut que nag politique aussi ñuy taxaw di di di di analyser ah. le président a eu 46 pour cent lors de ces élections avec tout ce qui s'est passé am na ñoo xam ne ils sont dans des localités bu ñu tànnee seen euh, candidat ci député yi mais dañ ne ñoom ànduñu ci peut-être euh, ba euh, am na sax ñoo xam ne peut-être ils ont fait des votes sanctions ci yenn localités yi loolu les gens en peut-être ñun amuñu ci preuve mais dama la bëgg a yëgal ne que soo yokk ci li nga xam ne moo waroon accompagner président mais gisuñu seen bopp ci candidat bu ñu investir. tey ci tey boo ko yokkoon président Macky day dem ba dépasser 60 pour cent au niveau national. oui mais le constat mooy que gannaaw ba loolu amul bu ñu defee comparativement. Mhm. à l'élection présidentielle de 2019 on avait annoncé 58 pour cent comparé aux législatives bii nii nga xam ne man mën ñu wax ne. c'est euh, une avant-première peut-être de ou un premier tour de l'élection présidentielle mhm. nga am ci 46 pour cent bu booba deuxième tour ngay dem donc bu ñu defee comparaison bi est-ce que mënuñu jàpp ne wala ñu euh, constater ne effectivement il y a eu régression sur le plan des chiffres. non dama ne sur le plan des chiffres. oui kii wax ak yow. je n'ai que travaillé sur ça. dama ne. Mhm. quand on est politique. analyste politique wala boog nga yàgg Sénégal. oui élection jàll ñu ne Macky am na 46 pour cent. 46 virgule 58 pour cent il était à à 5 pour cent en fait de 50 pour cent pour avoir au moins une majorité wala boog avoir la moitié de suffrages pour mun a jàll. ma ne la tey dama lay jox ay bëgguma tudd tur parce que je ne veux pas personnaliser ce débat mais soo jëlee Dakar nga jël ay candidats yoo xam ne yi au mois de février janvier dañu nekkoon candidat à l' donc euh, locale pour leur mairie am keneen ku taxaw yóbbu beneen liste gagné leen ñooñu six mois après ñu ñëw ñu ne leen candidat boobu gagné woon la moom la ñu defaat mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar pour les élections des députés ñoom mun nañu accepter accompagner président Macky Sall mais am na seen mer ne noonu man kii du ma ko votel dama ne la boobu boo jëlee nag euh, benn genre euh, taux perdu boobu boo ko boolee le président il dépasse les soixante pour cent foofu laay waxee géew gis nga cinquante huit yi mu amoon en deux mille dix neuf bu ñu demaatoon élection léegi il aura plus que cinq cinquante huit pour cent man maa la wax loolu. n'a ba loolu ñu perte ko taux perdu boobu ngay wax ñu perte ko finalement. non wax nga manque d' engagement mais au delà de ça plus profondément ouais. il s'est agi de quoi même fekkee ne am ñoo xam ne nanguwuñu accompagner yenn ci ay candidats mm mais qu'est-ce que la coalition devrait faire et qu'elle qu n'a pas fait moo tax ma ne la mhm. je suis aussi parfaitement d'accord avec euh, un journaliste qui l'a dit la semaine dernière on a quand même commis l'erreur mm -hmm. après les élections donc locales on n'a pas eu le temps quand même de tirer toutes les conséquences issues de ces élections xam nga man dama ne sama commune man samay nit dañu taxawoon maire

parce que on était en contact direct avec les populations xam nga aussi li ñu war a éviter ñun ñi nekk ci nguur gi parfois nga yore lu mat cent oto wala cinquante oto ay huit huit di ko dawal ci àll bi aj say vitre population bi mënuñu communiquer ak yow loolu c'est pas bon man j'ai préféré sol samay dàll ànd ak samay jeunes dugg ci kër yi maison par maison waxtaan ak nit ñi proximité ku ma ñëw laaj la ay jigéen toog ñoom waxtaan mais xam nga parfois problème yi lay souligner moo tax dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom dafa am solo da ñëw wax ñu ne la ñun amuñu réseau wala ñun suñu ndox bi euh, doyul wala dañu am problème yoon fii ku fi feebar bu ñu koy yóbbu dafay dafay am problème ci yoon bi mais dama ne cas yu mel noonu lañ lay souligner mais doo mënta dégg sax ñu lay wax ne la ñun dañu am problème personnel non dama ne ñoo ma jàppaleel boo leen dégloo boo amul leen jox mais nga dalal seen xel soo yoree sa benn dix mille cinquante mille franc nga yëkkati jox leen peut-être loolu mooy mooy li nga yor nga doyloo ko jox leen ko loolu dama ne mooy meilleur en fait euh, pour man euh, procéder pour que nga convaincre les les gens biñ ko defee yàlla dimbali nañu bi ñu dem élection locale man am naa quand meroon ñoo xam ne ñu dañ dem à la ñoom du ñu mës a voté le candidat choisi parce que d' accord uñu ci élection yi dama mujj delluwaat ci ñoom waxtaan ak ñoom effectivement ils ont compris dellu siwaat votel Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi d' donc les leçons ont été tirées voilà. et les bonnes conclusions et vous avez passé aux actes alors gannaaw loolu élection législative yi jàll na parce que proclamation euh, résultat définitif yi conseil constitutionnel def na ko barki démb euh, actuellement nous allons vers euh, l'installation de la quatorzième législature mais avant boobu am na benn jeu d'alliance boo xam ne c'est hors de l'hémicycle mhm. c'est sur le champ politique Pape Diop mhm. démb bu barki démb jot na dama benn Benno Bokk Yaakaar le groupe parlementaire mhm. euh, boobu ban gis-gis ngeen ci am euh, vous vous ngeen ci fëgg seen dënn wala non xam nga sant yàlla hmm. euh, parce que dinaa ci ñëw peut-être ma may benn parenthèse bu ndaw ma lister un peu euh, président Macky Sall li mu jot a def ci wàllu réalisation dans plusieurs domaines dama ne la senegal bu ñu doon cité secteur par secteur amul secteur booy tudd boo xam ne bi président Macky Sall la mu fa def tous ses prédécesseurs ñi fi jaaroon amul kenn ku ci def même le tiers loolu Sénégal yëpp ko gis man je suis allé voir des marabouts ñu ne ma Ibra problème bi am président Macky kenn mënu ko reprocher bilan nit ñi kay Sénégal mooy nit réew mi nga xam ne ni peut-être démocratie dafa toll foo xam ne fii ñu bu élection jotee dañ naan jógee fi ñu toog maanaam jógal ci siège bi nga nekkoon ma toog uniquement ça parce que le discours n'est pas programmatique boo dégloo opposition bi lors des élections passées man je l'ai déploré d'ailleurs nee naa man je m'attendais que ñoom ñu ñëw ak programme parce que quand même a des cadres qui sont quand même dedans. ils sont ils ont présenté des programmes. mais mais mais Aar Sénégal na programme avec un contrat de législature euh, Yewwi Askan Wi présenté na benn programme il euh, y a d'autres moom mi nga xam ne moo jiite boo ko gis-gis liggéey ànd liggéey moom aussi présenté na programme. waaw Pape Diop man j'ai vu un document de base. peut-être aussi euh, ñi ngay wax noonu ils n'ont pas partagé avec tout le monde man li ma jàppoon mooy sama localité y avait en fait benn chaîne à musique benn wéykat boo xam ne dañ ko jox mu def benn kasetam di sànni xeer Macky Sall waxu waxu waxu waxu lan ay troisième mandat du fi amee ay affaire nangam na mais gis nga yóbbu pour ma intéressé wul sénégalais yi xam nga lan moo am solo dañu ne président bi fii nekk nañu koy doyee mi ngi liggéey Sénégal wala liggéeyu ko mais bu ñu ne tey Afrique képp ku ñëw Sénégal d'ailleurs boo liiree Afrique centrale man j'ai des quand même promotionnaires yuy ñëw Sénégal souvent mais ñoom dañuy ñëw bu ñu gisee Sénégal daw ti autorité yi ba pare wax ñu ne la mel ni Ibra yéen li ngeen am ñun bu ñu amoon la Thierno ñun dañuy sant yàlla yéen chance bi ngeen am ñun amuñu ko beneen affaire bi mooy ñun boo xoolee peut-être fii Sénégal benn exception la au niveau de la sous-région parce que dans euh, tous les pays limitrophes du Sénégal peut-être c'est des mais ñun yàlla may nañu sàng nañu sutura tey am nañu leader yoo xam ne quand même fees nañu dell seen chaise ba nga xam ne ni ñu ngi gérer loolu bëgg naa ci ñëw tuuti peut-être ci wàllu programme nga xam ne côté sécurité côté santé côté éthique éducation côté transport foo ci dem rek dinaa la lister loo xam ne lii presque ci réalisation 12 ans yi jàll ni amul benn président bu ko fi mas a def loolu nag defe naa ne bu amee il faut que ñu sant yàlla moo aussi sant ki nga xam ne mooy euh, de Pape Diop il faut quand même qu'on soit des Pape Diop a été grand en tout cas man apprécier naa li mu def parce que tey ci tey ñun on avait 82 députés moom avec euh, son poste de député déjà on est majoritaire à l'Assemblée nationale loolu dina permettre gouvernement bi les projets de loi mën a jàll loolu dina permettre tey li nga xam ne mooy accompagner l'action gouvernementale même su fekkee contrôle dafay am mhm. mais que quand même les députés puissent accompagner donc le gouvernement quand même à faire des réalisations dafa lu am solo la quand un Sénégalais quand même pose un acte aussi war a sant dañ ko war a gërëm donc loolu d' accord euh, nee na li waral li li justifier son choix. Mhm. mooy il ne veut pas de blocage institutionnel. Mhm. parce que c' est li nga xam ne moom le régime bi en tout cas Benno Bokk Yaakaar di di di di wax souvent mooy ne Yewwi Askan Wi wala bokk opposition bi li ko tax a jóg mooy ñëw bloquer assemblée nationale. bloquer toutes les lois yoo xam ne majorité bi ou peut-être Benno Bokk Yaakaar proposé na ko mais est ce que loolu aussi yenoon na maanaam est ce que raison boobu nekk na raison boo xam ne doy na. pour convaincre les gens d'accepter son choix. waaw dama ne xam nga xam nga Pape Diop. Mhm. entre nous nañu waxante rek dëgg. dara feesul bëtam parce que Pape Diop d' abord nee na il a été député presque à l'âge de vingt cinq ans. Mhm. koo xam ne kii ba nga commencé vingt cinq ans ba fi nga toll nii yaa ngi ci ay euh, teraanga. Mhm. nekk maire Dakar nekk na fi ministre plusieurs fois. donc kooku nekk na fi président assemblée nationale kooku lan moo ko dese. kooku man pour man bëgg Sénégal ak peut-être xale yi euh, jeunesse su Sénégal rek moo ko dese acte bi posé dama ne. comme la majorité peut-être le gouvernement euh, avait peut-être quatre-vingt députés député muy quatre-vingt-trois du coup Benno Bokk Yaakaar devient majorité au niveau de l'Assemblée nationale loolu nag nit ki ko indi pour man li ñu ko mën a mooy sant ko parce que nee na bëgg Sénégal xam nga tey ce n'est même pas dans votre intérêt et dans le mien parce que tey ci tey bu ñu demoon assemblée ñu ne député mooy euh, moo am majorité qu'est-ce qui va se passer chaque fois que parce que en dama ne la opposition Sénégal mooy opposition boo xam ne bii mooy ñoom d'abord amuñu pour pour man programme yi ngay wax noonu man gisuma ko mais damane amul benn discours programmatique boo xam dañ ko teg wala boog am na benn projet de euh, société boo dañ ko teg pour ne Sénégal ñun buñ ko jël ci tànk yi lañ ko bëgg a teg kooku nag bu demee assemblée la muy def mooy nañu bloqué Macky Sall bi ba nga xam ne nii du mën a même pare mandat am loolu moo doon seen kii mais yàlla du leen ci jàppale ci alors euh, wax nga ko euh, député yi vous êtes majoritaire mhm. euh, 83 contre 82 mhm. treizième bi dañu constaté absence yoo xam ne dafa doon am ci biir député yi rawatina waa Benno Bokk Yaakaar parce qu'ils étaient au nombre de 125 127. Mm-hmm. Euh, bu ñu absenté en tout cas s'il y a beaucoup d'absence ça va pas se sentir mm-hmm. pour am majorité très facilement mm-hmm. bi yoon la majorité et la minorité boo xoolee benn moo leen départagé mais bu boobaa est-ce que jàppoo ne cette fois-ci les députés de la quatorzième législature ils seront contraints de travailler et d'être présents à l'Assemblée nationale dans toutes les sessions gis nga foofu moom dama ci ànd ak yow gis bu ñu la jëlee jox la ndomb tànk mu nekk député wala peuple populaire parce que peuple bi ñoo la fal wala nga nekk par exemple directeur général wala ministre parce que président la bi moo am confiance jox la ko mhm. da ko war a matee gis nga man je suis PCA je suis peut-être PCA yoo xam ne yi su ma voyagé wul tous les jours je suis dans mon bureau à partir de 9 heures jusqu'à 17 heures ou 18 heures loolu d'ailleurs ñëpp ko reconnaître mënoon bureau tous les trois mois ma dem def sama dama war a ñëw parce que dama war a liggéey parce que dañ ma tànn jox ma ndomba tànk di ma fay loolu nag pour man législature bi aussi l' autorité dañ ko war a taxawal ba nga xam ne député bu ñu fi jox ndomba tànk jox la oto jox la carburant ngay dem assemblée di voter les mais munoo nga ñu tànn la nga dem tëdd sa dëkk wala dem voyage dem Europe dem tëdd fa gars yi dem assemblée nationale session kenn du la gis c' pas normal loolu il faut que gars taxaw ci quand même parce que nag fi ñu toll nii ni ko waxee affaire bi quand même dafa li ngay wax noonu c' est pas l' majorité même de l'opposition am na ñoo xam ne ñii ils sont de la diaspora dem nañu foofu ñu fal leen gis nga bu ñu leen falee ba pare ñu def joxe compte bancaire ñu viré leen seen tu ne les verras plus ici dañuy dem tëdd yore seen liggéey continuer di liggéey foofu bu session amee duñ fi ñëw ñooñu nag il faut que d' état jël ay dispositions yoo xam ne un député qui s'absente d' je pense que d'ailleurs les lois de l'assemblée l'assemblée l'ont un député qui ne présente parce que liste euh, suppléant yaa ngi fi ku ci ñëwul wala ka topp ci yow ñu jël ko takk mu mu dem liggéey liggéey bi. d' accord voilà d' accord alors on, on va passer à autre chose terminer avec euh, l'AIBD. Mhm. Euh, yow yaay euh, président conseil d' administration bu AIBD assistance service 2AS. Mhm. Euh, tout dernièrement une bonne nouvelle pour la l'AIBD aéroport international Blaise Diagne de Diass dirigé par Doudou moom si boppam moo wax ne. Euh, ils ont pu solder maanaam fay nañ seen i bor yëpp yi nga xam ne mu ngi toll ci cinq cent et quelques milliards de francs CFA. Mhm. Euh, yoo xam ne euh, fay nañ ko ba jamono ji Sénégal moom moom aéroport boppam. Mhm. mbir moomu certainement succès nga ko jàppe yaa ngi au cœur de l'action de l'AIBD. Mhm. yan détail nga ñu si mën a jox ba action yi ngeen mëne ba mu aboutir ci bonne nouvelle bi. Euh, waaw foofu aussi dama ci euh, def euh, benn précision bu ndaw mhm. man quand même dama doon koo xam ne kii je ne suis pas un nihiliste bien vrai que je ne suis pas à AIBD moi je suis au niveau de AIBD assistance c'est la l'unique société d'assistance au sol mhm. qui joue aussi un rôle très important au niveau de la plateforme aéroportuaire parce que tout ce qui est assistance des avions c'est cette société quand même moo koy def mhm. li ma mën a wax mooy le constat quand même il est fait depuis presque un an boo xoolee il y quand même une évolution positive au niveau de la plateforme aéroportuaire en termes de chantier. Parce que partout, c'est des chantiers autour de l'aéroport, dans les aérodromes secondaires. Parce que l'aéroport de Saint-Louis vient d'être réceptionné le 14 passé. Actuellement, les gens ont enchaîné avec l'aéroport de Kolda et de Ziguinchor. Cap Skirring a été déjà réceptionné, ça fait maintenant six mois. Et d'ailleurs, dans les prochains mois, Tambacounda et Kédougou seront certainement abordés. kon loolu pour man c'est des actions quand même parce que nag loo mënti wax mooy président Macky Sall quand même secteur boo dem wax naa la ko mun naa lister lu ma secteur yoo xam ne secteur clé de l'économie sénégalaise boo ci demoon tey bu ci nekk lam fa jot a def ci réalisation depuis cent 1960 bi léegi gisuñu ko te secteur aéroport def ci jiitu parce que nag dañuy rappeler man yàlla daf ma may j'étais au cœur de ce système là depuis donc 2004 ba fi may wax yow nii pour avoir été donc PCO des aéroports pour avoir été aussi à la SECNA pendant presque quinze ans, et puis depuis de deux ans, je suis donc à AIBD comme PCA. Donc, li may wax nii euh, doon na loo xam ne li d'ailleurs j'ai fait des des travaux de recherche dans ce domaine-là mooy AIBD donc loolu yaakaar naa ne que xam nañu tuuti fi ma bëgg ñëw nag mooy euh, xam nga booy tabax aéroport peut-être euh, Sénégal amoon na benn depuis 2006 boo xam nga jël ay xaalis ci partenaire mais comme tu avais la RDIA mooy redevance de développement des infrastructures aéroportuaires qui sont ponctionnés en fait sur les tickets des voyageurs yow nga dem des sociétés qui qui qui qui qui euh, boo xam ne les voyageurs disent que c'est trop cher waaw mën nañ ne c'est trop cher <laughs> mais xam nga lan moo si am euh, service aéroportuaire il faut que comparer avec ce que en train de payer. Mhm. Et man, je pense que notre aéroport n'est pas euh, euh, l'un des aéroports les plus chers de, de, du monde ou de l'Afrique. Mais qualité de service, lay jox peut-être moins moins mengo ak lañu lay laaj. te comme ñun dañu amoon benn aéroport boo xam ne dañ koy tabax chantier bi ñu commencé ko vers les années 2006 xam nga loolu xaw na yàgg ñu def dema dem ba mën a mama chantier bi bloqué bi président Macky Sall ñëwee ak ci xam-xamam ak bëgg réewam yàlla may ko mu décante décante situation bi a des partenaires partenaires yooyu ñu ci jiitu woon c' vrai que les Français sont dedans mais y avait la Turquie ñoo xam ne ñooy ñëw presque ak euh, parce que Bandadan moo yore woon aéroport constitution bi mu bloqué les gens sont venus injecter de l'argent pour accompagner la finalisation de la et ça en un laps de temps yàlla may ñu donc enfin donc dans les 2017 on a réceptionné l'aéroport depuis lors vraiment yàlla sàng nañu sutura chaque abaloon Sénégal xaalis pour mu pare aéroport am si le montant est évalué à 500 milliards euh, comme le que le DG l'a dit c'est vrai que j'ai pas je ne suis pas encore tombé sur un document officiel bu wane loolu mais comme il l'a a, dit on peut ne avoir confiance en ce qu'il dit mooy les 500 milliards ont été soldés à vis-à-vis donc de ces de ces banques qui ont prêté de l'argent pour la finalisation de l'aéroport moo koy def Oui, quand même, il y a une concession qui est Et pas en fait un secret, hein, euh, à peu près, euh, c'est une concession euh, à, à, à, hauteur de 51%. Le Sénégal détient presque 49% de l'actionnariat. Par rapport à ça, maintenant, la Turquie est dedans. L'Oluman, c'est un travail scientifique qu'il faut faire. Maintenant, comme ils ont dit, certainement, ils ont dû des dettes dues loolu quand même c' est une chose qu'il faut saluer loolu bu amee ci réew dañ ko war a sant et sant ñi ko def ko d' accord euh, une dernière question euh, mm. sur la sur la question justement am na benn euh, document boo ci bind benn mm. mémoire mm-hmm. euh, sur les enjeux de la protection d'une infrastructure d'importance vitale au Sénégal le cas d'AIBD mm-hmm. gannaaw nag mm-hmm. ba AIBD Sénégal moo ko moom léegi bu ñu sukkandikoo ci directeur général bi lan moo nekk justement ah très très rapidement les enjeux d'une protection de la protection d'une telle infrastructure xam nga yàlla daf ma dimbale bi ma nekkee ASECNA j'évoluais dans le domaine en euh, yàlla dimbale ma jàng ay lijaasa yu bari mais bi ma demee ba mille 2017 ñu ubbi aéroport bi ma dem toog je suis au cherche à l'université avec euh, euh, la faculté des sciences juridiques ma ne dama bëgg def recherche sur en fait l'infrastructure aérienne J'en ai avec euh, vraiment euh, le doyen euh, qui était à l'époque euh, le doyen de la faculté des sciences juridiques. Il m'a vraiment donné une piste. Ci laa dem vraiment j'ai fait ce travail là sur l'aéroport AIBD et je pense que c'est l'un des documents hein, très rare d'ailleurs parce que d'habitude secteur bi recherche bi am na mais bariwul boo xam ne bii dama ko teg ci aéroport AIBD lépp loo dafa am société foofu bu nit mën a gis lépp luy actionnariat lépp luy activité sécurité ak yeneen commercial dama ko ci bind ci ci ci ci ci ci mémoire boobu bi ma ko bindee aussi j'en ai partagé avec vraiment des scientifiques ils m'ont donné des conseils j'ai pu rassembler tout ça pour def ko document bi tey ci tey comme je dis aux étudiants képp ku bëgg xool wala xam lu xew ci secteur aéronautique boo liiree document bi pour man dinga ci am éléments yi nga soxla woon li ci des nag mooy tey suñu aéroport bokk na ci aéroport yi gën a wóor en termes euh, d' infrastructure parce que aéroport bu bees la bi ñu ko réceptionné ak léegi ça juste quatre ans c' est vrai que aéroport évolution la il y a quand même des travaux en vue et certainement les gens quand même vont accélérer les choses comme ni ñu ko defee ci aéroport secondaire qu'on puisse vraiment renouveler euh, certaines infrastructures li nga xam ne moom ay manquements yu ñu noté de part et d'autre parfois voyageurs yi bu ñu ñëwee am yu ñu je pense que loolu état dina ci jàppale ba ñu taxaw ci ba yooyu yëpp ñu ko tous les jours que Dieu fait liggéey dafa war am foofu munoo dem rek ne bon j'ai réceptionné mon aéroport maintenant je peux les bras non da war a continuer di liggéey da war a continuer di investir da war a continuer defar ay piste yu bees en fonction du trafic il était estimé en 2019 on devait atteindre même les 3 millions de passagers avec la situation de Covid-19 ça a un peu bloqué les choses mais quand même c'est on cela veut dire que donc situation Covid mun nañ ne actuellement mi ngi suñu ginnaaw loolu nag il faut saluer quand même aussi la position de l'État parce que le président quand même a injecté beaucoup de milliards dans la compagnie aérienne Air Sénégal il a injecté comme ni ñu ko waxe léegi pour solder donc les dettes que AIBD devait vis-à-vis de ses partenaires defe naa ne loolu quand une autorité quand même fait des actions aussi positives il faut quand sant yàlla peut-être je vais te surprendre mm-hmm. euh, dama ne man ça a été un combat de tous les jours mais comme dama ne dañu woon dem élection législative man sama objectif moo doon d'abord élection législative pour ñu am majorité bu ñu ci jógee projection yi c'est en 2024 déjà coow li bari na la ñu naan woy président Macky Sall 15 mois moo ko desee fii mais dama ne li nga fàtte wax je suis un doctorant aussi en droit je suis à certainement année bii je vais donc cette thèse de doctorat en droit ñëpp ñi nga xam ne yàlla may na leen ci wàllu xam-xam jàpp nañu ne si on se limite à la constitution qui a été donc votée en 2016 le président Macky Sall a droit à un second mandat de cinq ans texte bi loolu la wax et c'est clair à ce niveau amul leneen luñ ci bind dañu ne le mandat du président la République est plus de deux mandats successifs de cinq ans texte bi loolu la wax donc loolu dafa dafa leer maintenant heureusement que d'ailleurs un leader politique comme Barthélémy Diaz il est sincère en ce qu'il na bu ñu tombee ci caution bi rek Macky am na droit def beneen mandat li ma bëgg wax nag aussi ça je prends la responsable l'entière responsable de le dire autour du président Macky Sall tey Benno Bokk Yaakaar un homme de la posture de Macky Sall pour pouvoir le succéder amu ci je le dis en toute sincérité nañu waxante dëgg. mais est-ce que vous jouez pas aussi ci euh, soit quinquennat septennat et cetera parce que euh, dans la constitution <laughs> on dit que c'est deux nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. non non non on voit votre communication <laughs> orientée vers le quinquennat. Euh. mais quinquennat boobu est-ce que c'est pas un jeu parce que 2016 Macky Sall a modifié la constitution avec à travers un référendum. Mhm. pour quitter sept ans. revenir à cinq ans. Mhm. peut-être xam naa pour calculer vingt quatre est-ce que c'est pas un calcul politique. waaw xam nga xam nga ñun bi ñuy vote mhm. man en tout cas man j'ai voté parce que je suis avec le président Macky intention bi mu amoon. yàlla rek moo xam moom li mu bëggoon def mais dama ne li ñu bind laa wax. xam nga a fait du droit. ko tegal ko la constitution actuelle du Sénégal. xam nga parfois quand on modifie une constitution toujours dañu doon. Euh, euh, renvoyer nit ñi sur la la constitution précédente pour dire que pour tel article prenez contact avec l'autre constitution qui était là mais disposition transitoire yooyu daan am mais amul ci constitution bu bees bi y a pas de disposition transitoire on une constitution toute neuve qui est la ñu ne lan le mandat du président de la république est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats successifs on ne va pas encore préciser de parce que ça devait être une répétition normalement on devait le faire en droit mënoo ko def parce que ko defee ñu ne la c'est une répétition dama ne kenn deful Sénégal xam nañu ne sur du point de vue des textes le président Macky Sall droit à un quinquennat à un autre mandat de cinq ans et que incha allah li mu am nii ak ñi nga xam ne waroon nañ ko jàppale mer tax jàppale wuñ ko su ko boolee en 2024 il se présente il aura plus de 60 dama koy demander moom nag moo xam est-ce que il veut le faire ou bien il ne veut pas faire su taxawee mu ne man bëgguma su boobaa ñun on va prendre quand même des dispositions mais en tant qu'on est là man en tout cas je vais défendre pour qu'il soit candidat en 2024 jërëjëf merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal kon ci euh, teewaay bi merci di rafetlu ñëw bi nga ñëw fii euh, yaay président conseil d'administration bu 2AS nekkoon suñu invité ñu amoon mbégte dalal la ñu leen jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi di leen ñaan ngeen wéy di ànd ak Sénégal 7 jërë ngeen jëf